jërëjëf mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen déggee loolu de xam ne amati leen bis bu rëy bis bu mag bis bu tedd sant Cheikh Mamadou a Bara borom jur mën borom Mbàkke Kajoor boo ñëkki déy borom baara yi Mamadou Lamine delloo njukkal ndongo Njaay Kébé maire ma Sëriñ Tuubaa ne woon ndongo Njaay Kébé maire foo nekk yow man xiyaam ma ànd ak yow ak koo mën a am loolu war na ki ñuy tàntal bis bi nag ànd ko ak moom at mu jot bés bu set muy xalaat at mi ak bés bi sant Seex Mouhamed Lamine Baara borom bi koo koy kat xaadim mu tuddee Xaadimu Mustafa bàyyi Basak Baara maami Gaynde Fatma kookoo demoon 1895 jaaxal tubaab yi delloo njukkal nag askanu Sénégal bu Cheikh Mouhamed Bamba Xaadimu Rasuul muy kan Xaadim Seen di sant suñu baay bu baax bi Alaaji Moodu Baara Seen ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér ànd koog sunu yaay bu baax bi Adja Soodu Diouf mu ngi nii toog jigéen ju baax jigéen ju mën góor jigéen ju dabe ju gore ànd kook nag waa koñ bi kañ lay doon le 28 février tombé kan ajjuma ñuy sant Cheikh Mouhamed Amine Baara borom guy mbind delloo njukkal Ndonga Njaay Kébémer kooku kat la Xaadim Seen borom bis bi borom baat bu neex bi kii defar Kébémer gone goo xam ni lu baax du mu jëmee kanam dong lay def ci diwaan Kébémer Xaadim Seen foo ko fekk mi ngi jëf ci lu baax mu ngi dox ci lu baax di wax lu baax ci diine ak lislaam moom mi nga xam ni imaam yeeg naam ñëpp dañ koo naw ci diimu nekk jërëjëf seen Xaadim bis bi nag ajjuma le 28 février lay doon maa ngi nuyu jënd ak sama jigéen bu baax jigéen ñi nga xam ne jigéen ñi mën góor na di ko jàppale ak mu jot ci bis bi ci mel ni ki nga xam ni aji soxna seen madame Ndiaye ñu gën koo xam ci ki nga xam Cheikh ki nga xam ni ah Cheikh na Cheikh bu la xam ni foo ko fekk soxna Cheikh Saad bu lay noyee lay noyee ci biir ci biir xolam mi ngi nii dend ak man ci biir studio bi ma toog kàddu gi jébbal ko mu wax ci li nga xam ne mooy bis bi soxna si dañ lay jébbal kàddu gi jox la ko ci bis bi nga xam ni Serigne Khadim seen moom la woote. waaw wax nga dëgg Assane dinaa bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sangu-sangu yi. ñu ngi leen di nuyu di leen di nuyu suñu ñaari waajur yu baax yi di leen ziar di leen ñaanal gudd fan ak wér ginnaaw bis bi nag sëriñ Xaadim Seen daf koy woote fii ci Mbasseen di ko bokk ak mbokki jullitam yëpp képp kuy mbubboo turu Seydina Muhammad rek yaa ngi ci bis bi bàyyiwuñu kenn di woo jigéen ñi nga xamante ne suñu ñoom lañ bokkal koñ bi ñëpp di woo suñu yaay yi di woo suñu bàyyi ci koñ bi yëpp bàyyiwuñu kenn bis bi nag ñu ngi koy woo képp koo xamante ne sii nii rek ci askanu Ngéwél nga bokk ñu ngi lay woo ci bis bi di woo daayira fédération di woo daayira na bi di woo daayira yi nekk suñu gox bi yëpp bàyyiwuñu daayira tiijaan bàyyiwuñu benn daayira yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ndax bis bi kat bisub sëriñ xaadim seen la te sëriñ xaadim seen kat xaadim seen bu ñëpp la ndax yaakaar naa ni jullit yëpp a ko bokk képp ku wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu an an muhammadu rasulullah ci nga bokk kon yéen ñëpp ñu ngi leen di woox woo bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw yéen ñëpp ñu ngi leen di woo suñu bis bii di le 28 fii ci kër alaaji Modou Bara Sène jàkkaarloo ak Mbàkke jàkkaarloo ak Njimbira kon kat bis bi ñun ñëpp ñoo ko bokk yéen ñëpp ñu ngi leen ci woo ndax xaadim kat bàyyiwul tiijaan bàyyiwul murit gi mu jokk bàyyiwul xaadim bàyyiwul laayeen bàyyiwul kenn képp ku di jullit rek xaadim sam xaadim la ñëpp ñoo bokk xaadim kon na yéen ñëpp ñu ngi leen ci woo di ci woo suñu sang yu tedd yi nga xam ne si ñoom la yàlla booleel ñu woo shérif yëpp bàyyiwuñu kenn di woo mbàkke mbàkke yeeg ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci suñu bis bi bëgg ngeen teew le 28 février fii ci kër El Hadj Modou Bara Sène koy def di Seex Saadu Samb kon nag suñu sañoon yéen yëpp ngeen ñëw fanaan ak ñun bokk ñuy bis bi ba mu jeex ci daraje Seydina Muhammad salaam. monsieur le maire El Hadj Modou Lamine Thiam di woo ba tey waa conseil départemental El Hadj Modou Diagne Fada ci woo bépp képp koo xam ni Xaadim Seen daan na jëflante ak yow lu baax ci gox bi Xaadim Seen mi nga xam ni ci dox bu baax ak jëf bu baax rek lay doxe di ci woo ñëpp képp ki wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ñu jàpp ko le 28 février te mun teg ajuma fii ci quartier Mbassine delloo njukkal maam Ndongo Ndiaye Kébémer sagum ngéwël mooy Ndongo Ndiaye Kébémer Ndongo Ndiaye Kébémer àndanteeg Serigne Touba àndanteeg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci bis bi nga xam ne moom la Serigne Khadim Sène bu woote ku koy jàng nag ah du doomu May Ndiaye Samb ki nga xam ni foo ko fekk turu yàlla kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lay woy kalimatu la ilaha illallah lay tibbee ci bir xolam di beglo nit ñi di len sagal kooku mooy kan sabbi sam bala ma gëna sori mo jox sama jigéen mu wax ci bis bi wax ni muy tedde wote ak jëf lu baax ci li nga xam ne bisib sori xalim seen ma ko kaddu gi soxna ci kaddu gango wa asal jere jëf lolu soko xé mën naa ki nga xam def bis bi moy sëriñ xalim seen di dom ci laaj Modou Bara seen Modou Bara bu am ci wa ko Cheikh Cheikh sad am ci murit ak xaadir ak tidiane ak laayan yi bis bi nag dañuy wax ni jigen ñi ñepp lañ ci wo mbaasin escale jàmm geul ñepp ñoo ngi leen ci wo soxna aji soxna tuddu na leen legi di wa daira xaadiriya ñoo ngi leen wo di wo tidiane yi di wo murit di wo laayan yi di wo ñeseen yi bàyyiwuñu kenn yéen ñi nak dañu bëgg ngeen gis ci seen bopp bu baax bu ci yàlla àndee le 28 février la di àjjuma ku mën su jodee nga ñëw ci quartier Mbassène bokk ci liggéey bi bokk ci organisation bi daara bi ñëpp ñoo ngi leen wóor ndax ñëpp ñoo bokk ci bis bi bis bi yaatu na bis bi bisu maam Ndonga Njaay la maam Ndonga Njaay képp kuy giwal sa maam la képp kon ñun ñëpp ñoo ngi leen ci woo waaw di wax rek di dellowaat di leen ñaaxaat rek di bëgg liggéey bi ngeen ci ñëw bu baax bis bi ngeen ciy ñëw ndax guddi gi moo ci gën a am solo bëccëg gi neex na loolu waaye dañoo bëgg guddi gi képp koo xamante ne bokk nga ci sëti maam Ndonga Njaay bokk ci askanu Ngéwal ñoo ngi lay woo ci guddi gi ngeen génn ci guddi bu baax du génn ci liggéey bi waaw di leen gërëm nag waa koñ di gërëm ñëpp bàyyi wunu jigéen bàyyi wunu góor di wax ni jàng yi yéen yéen ko moom gàmmo bi seen gàmmo la gamu xalim gamu ñepp la kep kuy julit rek di wo ci ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ngi lay wo ci bis bi di wax nak yeen ñepp ngeen génn ñu ngi leen di gërëm di leen sargal wasalaam ki ñu bëgg jël kàddu gi nak jébal ko ko sëriñ xaadim seen Baye kebe mer nayam bi nga xamni mo nekk ci juma ju mag ji kep ko xamni am nga bis bu mag mi bisub diine di bisub leneen Serigne Khadim Sène taxawu ko buy ci takk ga Serigne Khadim Sène nekk fa wax lu baax jëf lu baax dañ la njukkal ca ka nga xam ni moo ko woo ci bis ba bi dem néew Serigne Khadim Sène nekk fa di sikkar kalimatu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah Serigne Khadim Sène di bàyyi faalu ñëpp ci diwaanu Kébémer Serigne Khadim Sène bëgg département Kébémer ànd koog imaam yi ànd koog shérif yi bu ñuy noddu ci jumaa ji àjjuma jël Serigne Khadim Sène jël jottali ci ginnaaw imaam loolu gàcce ngaalaama di Serigne Khadim Sène di xale bu ndaw xale bu am avenir bu bëgg l'islam xale bu bëgg diine Serigne Khadim Sène dañ la njukkal kat war na ko jëlaat lépp jébbal ko askanu Kébémer jëlaat lépp tegoon ko ci loxo waa Kébémer waaye fàttewuñu nag ñi nga xam ne mooy waa Kër Diouf waa Kër Serigne Bara Mbacké waa Ndakar Sëñ waa Njabi fàttewuñu kenn képp koo xam ne yaa ngi ci tund wi di déglu suñu kaddu wala nga nekk ci diaspora bi Serigne Khadim seen mu ngi lay woo rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la Khadim Sène di àndal di liggéeyanteeg ci jumaa ji di àndanteeg ñoom ci jumaa ji ñoom ñi nga xam ne bu ñu gisul Khadim Sène boo ko Serigne Khadim ci loone Khadim Sène di bàyyi Khadim xaadim seen bëgg ñëpp xaadim seen sopp ñëpp xaadim seen xale boo xam ni lépp lu muy def lu ne da koy teg diine lislaam xaadim seen lépp lu muy def nag teg ko ci yoonu siraatal mustaqim mu jël lépp lépp nag dara jàll ko nag suñu sëriñ bu baax suñu xarit du suñu lépp sëriñ Seexuna mu sëriñ Abo Madiyaan wax na dëgg de delloo njukkal dalloo mbàtt ca ndaal kon ñu ngi woo ñëpp di wax rendez-vous le 28 la fii ci quartier mbassi ànd ko Serigne Khadim Sène ak suñu rakk ji nga xam ni mooy doomu may Ndiaye Samb fas yéene delloo mbaatu ca Ndaala di ki nga xam ne Sadou Samb ma jël kàddu bi jébal ko Serigne Khadim Sène. jërëjëf Assane ginnaaw bi ñu sante yàlla jul ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur yu baax yi di leen ñaanal yàlla guddal seen fant doon leen wér ndax lii ñuy def dañ cee waxtaan ak suñu wayjur yu baax yi di El Hadj Modou Bara Sène dem ci sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Xaadim Awa Ba mu jox ñu ci ndigal daan ni na café gi doy ñu koy def nag di sant Cheikh Mouhamadou Lamine Bara suñu maam waaye nag di delloo njukkal maam Ndonga njaay mi nga xamante ne si mooy suñu sakk ñun askanu géwal képp képp ku yeewoo Kébémer dib géwal Ndonga Ndiaye Kébémer sab sag la ndax digganteem ak Serigne Bamba digganteem ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ak njabootu Serigne Touba gi waaye nag di wëlbatikuwaat nag di fobaat bis jox ko ki nga xamante ne sii dafay kenn ci Kébémer doon koo xamante ne sii jàmbaar na ci yoonu Serigne Bamba Xaadim Rasool bi waaye nag jàmbaar la ci tiituroo maamam ji nga xamante ne sii mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke di sagub Serigne Abou Madiana muy Serigne Cheikhouna Mbacke ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam te doolu ko wér ndax lii bañ ci waxtaanee ak moom daf cee bég kontaan ci ñaanal ñi ci yàlla ni lépp loo xamante ne sii war na ko ci bis bii dina ko taxaw moom Serigne Cheikhouna Abou Madiana kon moom ñoo ngi ko ci sant bu baax a baax ci nangu gi nga xamante ne si nangul nañu lii ñu ko dara jàllal muy bisu maamam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké waaye nag wëlbatikuwaat di ko yëgal kuréel gi nga xamante ne si ñoom la samp fii ci Kébémer góor ñi Ibra Alaaj Ibra Diop jigéen ñi Aïda Guèye moom sama maam Jaakaan Guèye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi bàyyiwuñu bépp taalibe boo xamante ne si yaa ngi wuyoo Mbàkke tey làqu ci ginnaaw Serigne Cheikhouna Bou Madiyana waaye nag xaritam soppeem El Hadji Lakki Diop ñu gën koo xam ci Madawas Diop moom it ak waa topp bi kenn ku ci nekk gis nañ sa taxawaay ci sëriñ bi gis nañ fi nga teg sëriñ bi ak ni nga fonkee sëriñ bi moo tax ñoo ngi leen di yëgal bis boobu waaye nag di wëlbatikuwaat nag di ko yëgal suñu xarit di suñu mbokk di suñu soppe di Chérif Elim Talib Aïdara muy Chérif ay Aïdara ak njabootu maam Chérif Elim Talib gépp ñoom ñëpp ñoo ngi leen di yëgal bis bi di ko yëgal nag Chérif Cheikh na Aïdara imam di ko yëgal Chérif Talibé Ould Chibi waaye nag di ko yëgal Chérif Ba Aïdara ca Géewul ak Chérif Saay ay Aïdara Chérif Alwali Maana Ndiaye ak bépp sura faaw boo xamante ne fii yaa ngi yeewoo Géewul ak Kébémer ñoo ngi la yëgal bis boobu waaye nag Chérif Dieye bu ndànd di suñu xarit di suñu soppe moom it ñoo ngi koy yëgal bis boobu waaye nag di wëlbatiku di ko yëgal Serigne Abdoul Akram Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Bamba Khadim Rasoul waaye di ko yëgal sëriñ Jiili Mbacke moom sëriñ Seexuna moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacke di ko yëgal nag sëriñ Moussaïn Mbacke mu sëriñ ay sa Mbacke ak doomam ju baax ji nga xamante ne si tubaarkàlla moo nekk ba meer di sëriñ Xaadim Mbacke Afnal Xaadim bi nag ma jagleel ko ci wàllu jigéen ñi ajaratu Binta Kebe Sey deuxième adjointe au di ci teg ajaratu Ndioba suñu bàjjen Indu Jum di ci teg ba tey ndey Marème Diagne bu suñu nijaay Birahim Ndiaye di ci teg. Jatu Ndiaye mi nga xamante ne mooy Jatu Ndiaye bu Momadou Diagne Fada waaye nag di ci teg suñu jigéen di Penda Cissé moom it uh, ñu koy sagal ci bis sargal ci bis boobu di ci woo nag suñu jigéen Mame Marie Fall ak mbootaayam ak bépp askan boo xamante ne si yaa ngi bokk ci askanu naar ci suñu waa kër maam Birahima Aïssa Tall ñoo ngi lay woo ci bis bootu maam du Cissé ñoo ngi leen koy yëgal waaye nag rawatina sëriñ salaam jenn ca mbir na jenn jigéenam bu baax ba soxna Faat Jenn ñoo ngi ko yëgal bis bi ak képp koo xamante ni fii yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bis boobu sa bisa ñoo ngi la koy yëgal waa diaspora bi bàyyiwuñu kenn Ndaya Sarr sama jarbaat ak borom këram Omar Kébé Adja Ndeye mari Guèye njaboot suñu maam Sira Lo njabootu maam Dior Fall Cheikh Bara Sy Soxo ak njaboot suñu bàjjen Aminta Dieng ñoom ñëpp ñoo ngi leen di yëgal bis bi rawatina nag ki nga xamante ne si mooy jàmbaar di gaynde sëriñ Baara Mbacke di sëriñ Basiru Mbacke xaadim aw ba moo meet tubarkàlla di koo xamante ne sii cëral nañ ko ci bis bi yëg na bis bi fonk na bis bi moo meet ñoo ngi ko koy yëgal bu baax a baax di ko yëgal alaaji Seex Mbacke Kebe jëbal sëriñ Abdou Awa Kebe képp koo xamante ne sii yaa ngi yeewoo ci Kebe meer rawatina askan wii nga xamante ne sii moom lañ bokk muy askanu ngéwal te suñu maam bay fay ñebbe jiite ko alaaji Mbacke fay alaaj Adja Jaata Samb soxna Marema Ndiaye maam Maaka Ndiaye tubaarkàlla macha allahu sam papa Modou Thiam Ndiaye mi nga xamante ne fii njabootu Mor bu ñu ko tuddee tudd nañ ñëpp moom ñoo ngi ko koy yëgal suñu maam Amadou ndax Ndiaye Cheikh Ndaxte Ndiaye tubaarkàlla ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn bis bi daal bisu Kébémer la waaye nag bisu askanu Thiamène la ndax suñu soxna sii nga xamante ne fii moom la ñu yàlla booleel mooy jarbaatu sénateur Massamba Thiam di jàmbaari Serigne Touba di jàmbaari Serigne Saliou Mbacke waaye nag

fàtte nag Touba Diaw fàtte wuñu maam góor mbuub waaye nag suñu suñu wéyjur wu góor bi nga xamante ne fii mooy suñu magu yaay di alaaji fii di mbay ndaat ñoo ngi ko koy yëgal waaye nag njabootu suñu nijaay alaaji jaaja mbay bi nga xamante ne fii moom moo yor ju koy puso di ñaw diggante yi lépp lu ñaaw ci Kébémer alaaji jaaja mbay rafetal ko yemale ñëpp ci mbirum diine ak aada am jom am fayda am fulla am gor ba ñëpp raw ko naw ko tubaarkàlla moom it ñoo ngi koy yëgal di ko yëgal njabootam waaye nag suñu nijaay di nga xamante ne fii moo nekk France di Pambay France moom it ak soxnaam Cekka Mbay di suñu sang di suñu doomu ndey ñoo ko koy yëgal bis boobu moom daal fàttewuñu kenn rawatina nag Abdou Kader Kebe mi nga xamante ne fii moo nekk marché moom di yëngatu ca marché ba waaye nag rakkam Taala Jaw ak Pape Fall Dame ñoom ñëpp ñoo ngi la koy yëgal sama njaboot sama njabootu nijaay saa fa ma laam li nga xamante ne si dama koy jooy te noppeeguma ndax bëgguma bëggoon ak fu ma tegoon xalifaam abu laam ak sama sang sii di laam ak képp koo xamante ne si yaa ngi bokk ci askanu laameen ñoom ñëpp maa ngi leen koy yëgal yaa waaw jërëjëf Serigne Khadim seen kon bis baa ngi noonu di ci fàttaliku ba tey waa Njabi Fall rawatina suñu jigéen ju baax ki nga xam ne moo jàppale Khadim Sène te Aida Fall di ko ci woo ci bis di ci woo daayira Serigne Bass bu Serigne Khadim Awa Ba moom mi nga xam ne ndonga Njaay Kébémer jiite ko di ci woo daayira Jamiya bu Seydi Malick Sy Amar Samb jiite ko di ci woo nag ki nga xam ni nag moo daan tafaal bu ñu xëyee daan wàcc kaamil nan ko daan defee at mu jot bu ñu demee 11 heures ba une heure ñu daal def pause deux heures bu ñu jullee ba nopp daal di xewlu bu ñu demee ba seize heures di quatre heures ñu commencé nag fas yéene nag tagg yàlla tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci fas yéene jàng xasaay sëñ Tuubaa ki nga xam ni mooy borom Njabi Fall Mour Anta Fall dana fasikat ak ki nga xam ni mooy daayira Ndongo Njaay Kébé maire moom mi nga xam ni moo jiite daayira bi nga xam ni Serigne Bass mi Serigne Fall Awa moo ca nekk ñi nga xam ni tamit ak Cheikh Fadel Jimbra bi nga xam ni moo nekk ci diwaanu Jimbra képp koo xam ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay wax ci bis bi di la woo ci bis bi nga xam ne mooy bisub seen xaalis seen delloo njukkal maam Ndonga Ndiaye Kébémer santaat Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké borom kàddu gi borom njëkki dee waaye di santaat bu baax nag directeur Andu moom bi nga xam ne moo jàppale seen i xaalis seen borom rawatina nag borom Rasulallah FM fàttali benn yoon moom bi nga xam ne foo ko fekk ma oustaz Nazir Guèye Mouhamed rek la nooyoo oustaz Nazir Guèye moom mi nga xam ni Serigne Khadim Sène bañ na ko bu ko gisee xolam day seddu guy kon ñu ngi koy woo ci bis bi di yox rendez-vous ñëpp nag le 28 incha allah fii ci quartier Mbassine fas yéene nag tagg yàlla tagg yonent bi Cheikh Sadbou Samb mooy fanaane guddi gi di ci woo ñëpp askanu Kébémer département bi Kébémer lu wër région bi waa diaspora bi imam yeeg sëriñ si képp ku wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ñu ngi lay wax ci bis bi le 28 vendredi la tombé fii ci quartier Mbassine Sadbou Samb fas yéene fanaane guddi gi jërë ngeen